وأن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba tey mooy maa hiya shurut al muslim mooy ana yan charte mooy tax ab jullit nekk jullit loolu mbokk jullit yi dañu jàpp ne farata la waajib la ci ñun ñu xam diine jii di lislaam lan moo nu ciy boole lan mooy tax nu bokk ci ndax kat ci sunu dund mbooleem yëngatu yu ñuy yëngatu pour ñu bokk foog mu am ay charte bu dee liggéey la ci société boo mën a dem pour ñu jël la fa nga nekk liggéeykat fa am ay charte yoo xam ne soo ko remplir ba pare nga bokk bal sax yenn saa yi day laaj signature ci mbooleem sunu dund xataa tukki balaa ngay tukki sax dafa am ay këyit yuñ lay laaj ay charte ba charte yépp mat nga doog a dem tukki mbokk yi bu fekkente ne yooyu ci wàllu àdduna kese la lañ lay remplir loo ay këyit tegal la ay condition ba mu mat nga doog a bokk ca mbir ma rawatina sunu dund lii di sunu diine jii di lislaam bu nu yaakaar ne dañuy xëy rek ñu tuddee ñu benn tur ci turu jullit yi ñu judd ci sunuy way jur yu góor ak yu jigéen ñu nekk ay jullit rek ñu daal di cëppaxu ci diine ji rek daal ne ñun tamit ay jullit lañ laa hunaka shurut dafa am ay charte charte yooyu ngay teg nga xool sa bopp nga xool ndax yow matal nga charte yi pour nga nekk jullit yooyu mbokk yi bi ci njëkk mooy an yaarifa tawxid allahi fi libada an yaarifa tawxidu allahi fi libada charte yi nga xam ne mooy tax nga nekk jullit mooy tax ma nekk jullit mooy tax nun ñëpp ñu nekk jullit bi ci njëkk mooy na nga xam ak yàlla ci jaamu gi nga koy jaamu lan moo tax jaamu yàlla yi mun ta baax c'est parce que xamuñu yàlla ak yim ci am sunu xamoon ak yi nga xam ne moom la yàlla am ci sunu jaamu kon sunu jaamu yàlla day baax pour ñu xam lan mooy ibada wa huwa ifradu llahi taala bil ibadati la budda an na'lam fala yajuzu sarfu shay min al ibadati illa illa lillahi wahda mbokk yi il faut nu xam jaamu yàlla mooy kennal yàlla wéetal ko cundung moom kenn ci jaamu gi nga koy jaamu doo ko dendale kenn wala lenn du dagan ci yow jullit ngay jël lenn ci jaamu yàlla lu yàlla moom nga koy jox keneen loolu du dagan ci ñun li yàlla moom moom kenn ko moom amul kenn ku mu koy xëccool te du nangu nga jox ko keneen wala leneen tey li tax ñuy jël li yàlla moom di ko jox ñeneen wala leneen mooy xamunu da ngay fekk ñuy màggal ku dul yàlla wala ñuy sujjootal ay xërëm wala ay bàmmeel wala di rendil ay bàmmeel ak i xërëm lu waral loolu mooy ñàkk a xam ne loolu ibaada la lu ñu gàtt gàtt xam-xam yëg na yonent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah parce que azabhu ibada lillah yonent bi nee na yal na yàlla soril yërmande ki rendil kudul yàlla loolu moo wax tax nga war a dégg ne rend yàllaa ko moom amoo droit di ko defal keneen wala leneen kon mbokk yi al ibada yàllaa ko moom ibada mooy lan cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah firil nanu lan mooy ibaada mu ne ismun jaami li kulli ma yuxibuhu llahu wa yarda min al aqwali wal afaali alzahira wal batina sëriñ boobu firil nanu lan mooy jaamu pour buñ ko xamee ñu mën ko jagleel sunu boroom ñu bañ cee dugal kenn wala lenn mu ne mooy tur la woo xam ne dafa boole al ibada mu ne tur la wu boole lépp lu yàlla bëgg te gërëm ko moo xam loolu wax la wala jëf la wax ju feeñ wala ju nëbb wala jëf ju feeñ wala ju nëbb al zahira wal batina kon jaamu yàlla déggal bu baax wax la wala jëf dafa feeñ wala dafa nëbbu yàllaa ko moom ba pare na nekk lu yàlla gërëm te bëgg ko ci say wax ak say jëf yu feeñ ak yu nëbb loolu mooy jaamu kon lan moo fi desati mu ne yooyu nag dafa ëmb jami amali al qulub wal aqwal wal amal al jawarih da nga koy fekk moom jaamu yàlla mu nekk ci mbir yi ñu bëgg a lim benn mu nekk ci xol bi li xol bi di liggéey wala mu nekk ci wax yi li làmmiñ bi di liggéey wala mu nekk ci cër yi li ñuy liggéey kon doomu aadama lan moo des ci moom lu muy desala ci keneen wala leneen lu dul yàlla su fekkee sa xol bi li muy liggéey yàllaa ko moom sa làmmiñ bi li muy génne yàllaa ko moom sa cër yi li ñuy def yàllaa ko moom lu desati léegi nag ñun sunu jëf yépp sunu problème mooy jàpp ne sunu cër yi li ñuy def nii rek julli yi koor yi waaw xoolal lu njëkk ci yow jaamu yàlla gu njëkk mooy sa xol amalul qulub mooy xol bi jëf yi mu war a jëf doy na rek yàlla wax ni ci alquran rabbukum aalamu bi ma fi nufusikum man yàlla maa xam li nekk ci biir xol yi inna allaha alimun bi zaati sudur yàlla nee na maa xam li ci xol yi yowmal xiyaam yàlla ngi nettali yàlla nee na keroog bu may dekkil jaam yi keroog danaa génn li ci dënn yi li ci dënn yi lu fa nekk mooy xol yi bi afala yaalamu إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور yàlla nee na bu ma génnee bàmmeel yi ni ñu ci nekk ba pare damay génnewaat li ci dënn yi li ci dënn yi mooy li xol yi denc moo tax yawmal qiyaam yàlla ne ku fa dikk te sa xol baaxul la fa nekk da ngay perte yowmal xiyaam ku fa dikk te sa xol bi li mu ëmb li mu denc baaxut da ngay perte borom bi subhaanahu wa taala mu ne ci quraan bisub yowmal qiyaam ku fa ñëw te sa xol bi nekkul xol bu mucc nekk qalbun salim da ngay am problème kon amalul qulub jëfu xol yi li ci njëkk mooy lan atawakkul min atawakkuli tawakkulu ala allah fan lay nekk ci xol al ixlaas sellal fan lay nekk xol sidq fan lay nekk xol raja yaakaar fan lay nekk xol xubb mbëggeel fan lay nekk xol yi yëpp yàllaa ko moom su fekkee xol bi day wàkkiirlu te wàkkiirluwul ci ku dul yàlla jaamu xol baaxul su fekkee yow amoo sellal sa jaamu baaxul su fekkee am dëgguwoo xol bi jaamuwul su fekkee amoo yaqiin baaxul su fekkee yaakaaroo yàlla baaxul su fekkee da ngay jaamu te bëggoo ki ngay jaamu baaxul moo tax amalul qulub xol yi foog ñu sellal ko yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ala inna fil jasadi mudga maa ngi leen di yëgal ne am na benn daggit benn suuxu yàpp bu nekk ci biiru nit suux boobu su baaxee lépp baax ida salaha salaha al jasad kullu su suux bi baaxee rek lépp baax su suux bi bonee lépp bon mu ne ala wa hiya al qalb mooy xol kon nañu xam ne al ibada wàll wi ci xol moom su sellul jaamu yàlla du baax al ibaada dafa am wàll woo xam ne xol moo ko moom loolu foog ñu ràññee ko ñaareel mooy amalul lisaan li làmmiñ moom lii xol moomu ko waaye làmmiñ moo ko moom min zikrin ci tudd yàlla wa tilaawatil quraan wal amru bil maaruf wa nahyi anil munkar li xol li làmmiñ moo ko moom léegi bu fekkee làmmiñ moom du def lii tamit ndax jaamu yàlla ba jaamu yàllaam baax na foog làmmiñ bi di tudd yàlla sahaaba ba mu ñëwee sahaaba bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man day mbiru lislaam yi dafa bëri ci sama kaw dama bëgg rek nga jox ma benn mbir ma sax ci mu ne ko laa yasaanu laa yazaalu lisaanaka ratban li zikrillah fexeel sa làmmiñ bi nay tudd yàlla soo toll ala bi zikrillah tatma innul qulub yàlla nee na nit pour mu am tranquillité pour mu dal ci tudd yàlla dong la ko mun a amee kon mbokk jullit yi làmmiñ dafa am lu mu moom lan la làmmiñ moom mooy tudd yàlla ndax loolu kese la déedéet wa tilawati alquran ak jàng alquran ak jàng alquran ab julit lu mu alku alku alku xanaa boo xëyee war a jàng sax benn benn waraq benn page waroo génn sa kër allahu akbar waroo génn sa kër lu dul nga jàng xoolal rek cheikh ahmad bamba rahimahullah dafay wax ne ab jullit lu mu yàkkamti yàkkamti war na jàng ñetti hisib alxuraan doog a génn aka wuute gars yi liñ gëm tey ci ci moom lim wax nee na loo yàkkamti yàkkamti jàngal ñetti hisib balaa ngay génn sa kër loo yàkkamti yàkkamti loolu cheikh bi moo ko jàngalee yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ñu njëriñu jàng alquran mu ne laa aqulu alif laam mim harf bal alif harf laam harf mim harf nit buy jàng alquran yonent bi nee na harf boo jàng da ngay am fukki tiyaaba harf boo jàng mu ne da ngay am fukki tiyaaba tey soo doon jàng alquran ginnaaw ba nga musloo yàlla ci seytaane nga ni bismi yaata nga am am nga fanweeri tiyaaba te yow jàng goo fatiha bi nga nee bismi waxagoo laahi ñetti harf yooyu am nga ci fanweeri tiyaaba kon dëgg-dëgg mbokk yi ku mën a liir arab mën a jàng alquran kooku par jour ñaata tiyaaba la war a am xoolal loolu kenn réyalu ko duñ ko réyal lu tax parce que sifaat bi melokaan bi dafa sori léegi nañ wax ne su amoon kunnu booleel rek ñu ne ku jàng alquran harf boo jàng rek dix mille la boo ne kon bismi looy am quinze mille kon boo jàngee fatiha ba pare hey kon ran bu gudd allahu akbar di nga gis koo xam ne moom dundey bi foofu rek la taxaw di jàng pourtant noonu nu gëmee ci wàllu adduna ne tey su ko kenn waxoon def ko waaw ndax sayyidina muhammad moom daf leen di nax ndax yonent bi daf nuy nax ndax yonent bi daf ñuy wax ne ku wax alif laam miim am fanweeri tiyaaba ndax yonent bi moom daf ñoo bëgg a nax xanaa da ngeen a fàtte maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon ci jaamu yàlla dafa am lu làmmiñ bi moom làmmiñ bi foog nga jox ko lim moom mooy lan tudd yàlla zikr jàng alquran waaye al amru bil maaruf digle lu baax wala côté boobu tamit digle lu baax léegi ñëpp dañoo démissionné koo wax mu ne sa bopp damaa am vie privée bëgguma ko dugg ci sama vie privée kon du ma dugg ci vie privée jàmbur léegi al amru bil maaruf moom jeex na kenn dootul digle lu baax ñëpp a noppi kenn dootul mer ngir yàlla kenn dootul digle ngir yàlla waaw léegi loolu gaa yi naan sikkim yee lakkandoo amul kenn kuy waxati moo tax dëkk bi tàkk te xamuñu ne al amru bil maaruf jaamu yàlla la ndax ci li làmmiñ di jaamu yàlla loolu ci la bokk léegi nag comme romb nañ mbirum xol gis ngeen daanaka foofu amuñu fa dara ñëw nañ ci mbirum làmmiñ ñu néew ci ñun ñooy tudd yàlla ñu ñëw ci ñun ñooy jàng alquran soo ñëwee ci digle lu baax tamit nga fekk ñu néew ci ñun ñoo koy def waaw ndax digle lu baax kese la déedéet wa nahyi anil munkar ak tere lu bon digle lu baax tere lu bon tey jii jaamu yàlla boobu dong doyoon na ci làmmiñ bu ko nit ñi defee am tiyaaba yu dul jeex digle lu baax tere lu bon ndax dëkk bi li fi bon a bari lu baax lu néew la soo xëyee suba balaa ngay tëdd li sa bët bii di tegu ci lu bon li sa nopp bii di déglu ci lu bon moo ëpp bu baax li ngay gis bal sax dem nañ ba boo gisee lu baax da ngay yéemu allahu akbar tey soo gisoon kuy def lu baax da ngay waaru ndeysaan ngay kontaan da ngay ñëw ci moom mel ne benn yonant nga gis parce que waa ji mi ngi def lu baax foofu lañ toll tey mu des amalul jawaarix cër yi lan mooy seen liggéey cër yi pare nañ ci al ibada amalul qulub pare nañ ci amalul lisaan waa mbokk yi cër yeneen yi ñoom lan mooy seen taxawaay ñoom it ci wàllu ibada min sala julli wa siyaam koor wa du'a ñaan wal istigaasa xettaliku wal istiaana sàkku ndimbal wa nusk wa nazar wa zabh yii yëpp cër yi ñoo koy liggéeyal yàlla moo tax wax na dëgg ki firee islaam cër yi ñooy liggéeyal yàlla imaan xol bi la al ihsaan mooy ñaar yooyu soo koy def na rafet buñ lay wax marati bu diin dañ lay wax salaasa marati bu diin suñ lay jàngal aqida la jàngal pas pas liñ lay njëkk a jàngal mooy marati bu diin pour nga xam état bu diine yi ni ñu tegaloo bu njëkk ñu ne la al iman mooy ngëm ngëm yépp xol la juróom benn yépp xol moo koy def amul benn bu cër yi def yépp xol la wala al imaanu billah al imaanu bil malaayika gis nga yépp iman lañ lay wax yépp am iman nga ñëw ci islam ñu ne la cër yi ñooy liggéeyal yàlla juróomi mbir yooyu yépp cër yi la cër yee koy def nga ñëw ci ihsaan ñu ne la iman ak islam yépp soo koy def dafa war a rafet ngëm gi juróom benn yi dafa war a rafet nga ñëw ci islam bi ñu ne soo koy def dafa war a rafet kon ndeke cër yi mbokk yi dañoo am ci ñun taxawaay yu ñu taxaw jëf yu ñu war a def mooy julli cër bi yépp a koy def li tàmbalee ci kaw ba ci suuf sooy julli lépp ay dem nga ñëw ci koor kazalika yaram bi yépp ay woor nga ñëw ci du'a kazalika nga ñëw ci xettaliku ci yàlla cër yi ñoo koy def nga ñëw ci istiaana sàkku ndimbal yàlla nga ñëw ci rendi yàllaa ko moom nga ñëw ci nazar yàllaa ko moom nga ñëw ci jaamu yàlla yëpp yàllaa ko moom jaamu yàlla yooyu ñu wax te mooy al ibada te ñu firi ko ci ñett xol làmmiñ cër mbokk yi xam nga ñett yooyu su ko nit defee lan la koy jural mooy day am taqwa ya ayuha nnaas ibudu rabbakum allazi xalaqakum walladina min qablikum laallakum laallakum tattaquun ibaada boo ko defee rek ragal yàlla koor gi foofu la lay yóbbu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun aj màkk foofu la yóbbu fa tazawadu fa inna xayra zaadi hatta tabaski ak korite foofu la lay yóbbu hatta jàng alquran foofu la lay yóbbu xuzu ma aataynakum bi quwa wadkuru ma fihi laallakum tattaquun kon ibada fu mu yóbbu nit mooy jaamu yàlla mooy ragal yàlla soo defee ibada yi rek am ragal yàlla nga am taqwa loolu mooy martaba bu njëkk mbokk jullit ñaareel pour nga nekk jullit charte bu njëkk bi mooy nga kennal yàlla ci sa jaamu yàlla ñaareel bi mooy tasdiqu rasul fi ma jaa bihi nga dëggal yonent bi tey nag fi ñu toll mooy da ngay wax ne yonent bi nee nga dégg ku ne waaye nag waaw waaye nag dëgg la nee nga yonent bi nee na waaye nag mbiya neɗɗo annabi o o wi o wima kono noon kono noon yonent bi nee na amatul wax yonent bi nee na jeex na su fekkee ne ab dëgg nga da nga naan lu mu wax ñu ne la nangam nga la wax nga dem benn waaye dañ ko fekk ci marché bi mu takk lam yonent bee ko fekk mu takk lam ngandu lam mooy yi paa yi di takk tey nga xale yu ndaw yi moom lam yu ndaw la ñuy takk ama paa yi ngandu lam def ci seen tur dañu aju màkk biñ demee ba fi ñuy armalee benn waay ñëw ne ma gis nga paa bi lam bi mu takk ma ne ko dina ko simmi ndax fii moom lépp la ñuy simmi allahu akbar lépp la ñuy simmi ñëpp defaru ba pare may contrôlé ma gis ko mu takkalam bi ma ñëw ne ko allah asalaamu aleykum mu ne waale ma ne ko lii nag mu ne ah ma ne ko day dañ de waaw kii day dañ de mu ne ma te foog mu dañ ma ne ko te foog mu dañ ci yàlla nga jëm ndax lii du yàgg ci yàlla mu ne ma waaye su ma paree dama koy takkaat ma ne ko yaa xam kooku moom yaa xam xam maa moom day dañ xoolal su ma paree dama koy takkaat loolu moo lay wan ne aj bi nanguwut yonent bi dafa fekk waa ji takkalam ci marché bi yonent bi ne ko asalaamu aleykum mu ne wa aleykum salaam yonent bi waxu ko dara de dafa jàpp ci lam bi rek xëcc ba loxo bi deretal yonent bi sànni lam bi ci suuf ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflaxta abadan wallahi boo faatu woon lam bi nekk sa loxo doo texe allahu akbar doo texe wala lam la ko wax mu ne ko doo texe yonent bi wan waa ji ginnaaw nit ñëw taxaw yonent bi dem yoonam nit ñi ne ko yonent bi dem na jëlal lam bi nga takkaat ko mu ne yonent bi du tekki sama loxo safara ma koy takkaat yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat loolu mooy imaan ñooñ ñoo xam kan mooy yonent bi waaye ñun yonent bi nee na waaye jullit su dëggalul yonent kan lay dëggal yow yonent bi jàkkaarloog yow ne la laa nabiya baadi yonent dootul ñëw sama ginnaaw wala yonent bi waxul loolu yonent bi nee na laa nabiya baadi bal sax loolu dafa ndaw jëlal alquran lu mu wax maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa wa xaatama annabiyin yone yàlla nee na yonent bi moo tëj buntu yi tëj waaw léegi nan la yàlla di waxee yonent bi moo tëj keneen ñëw ubbi ko buntu bu yàlla tëj ne pare na yéen waa Sénégal ngeen ñëw ubbi ko de déedéet des na xanaa yàlla dafa fàtte tasdiqu rasul fii ma jaa bihi jullit foog mu dëggal yonent bi ci li mu wax laa yumin ahadukum hatta yakunu hawaahu tabaan li ma jitu bihi kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul dafay lamas ay bànneexu bakkanam sànni ko fa la topp man muhammad li ma indi mbokk yi foog ñu dëggal yonent bi ci lim ñuy wax loolu imaan la loolu farata la yàllaa ko wax wa aminu billah yàlla nee na gëm leen ma waaye war rasul ak yonent bi atiullah wa atiur rasul ñaata la ci alquran topp leen yàlla ak yonent kon dañuy dëggal yonent bi loolu mooy charte bu njëkk pour nga nekk jullit soo dëggalul yonent bi nekkoo jullit wa taatuhu fi ma amara bi soo ko dëggalee ba pare da nga koy topp ci lim la indil lim la indil da nga ko ciy topp moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi nooy waxee ne man gëm naa yonent bi mais wax dëgg yàlla li mu indi nag dafa xaw a diis te xam nga dëgg-dëgg ñun fii ñun fii boo buggee kii boo buggee lee boo buggee lëlee fii di commencé di lay yooyu ay lay la sahaaba yi layu ñu woon waaw waaw yàlla dafa wax yonent bi jottali leen ñu daal di jëfe keroog ba ñu déggee aaye dañu ne samina wa ataana jeex na ñun bi ñu déggee aaye dañu ne samina wa asayna te du benn tasdiqu rasul dëggal yonent mooy ñaareelu sart pour nga nekk jullit ku nekk nag na nga natt sa bopp xoolal ndax yow dëggal nga yonent wala dëggaloo xoolal rek xoolal sa bopp dëggal nga yonent wala dëggaloo ko ci li mu indi ak li mu digle waaye wàcc naa bi ma naha anhu li yonent bi tere fan nga ci toll ndax bàyyi nga wa mooy ñaareelu sart buy wane ne yow jullit nga wala doo jullit aqulu ma tasmaun واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على من ارسل رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اخوه الايمان ñettelu sart mooy muaadatul mushrikin wal kafirin pour ñu xam ne nekk nañ ay jullit wala nekk ñu jullit charte ñetteel mooy dañ laa sant muaadaatul mushrikin nga noonoo ak bokkaalekat yi ak yéeféer yi ñaar nii ñaari groupe yi dañ la dañ laa sant islam da laa sant bul ci at bul ci ut xarit bul ci ut mbokk bul ci ut xarit bul ci ut mbokk mbokk yi fa kam min muslimin la yaqa'u minhu shirk walakinahu la yuaadi ahla dëgg-dëgg koo fi gis tey ci ñun li ëpp ci ñun ñu ngi daw bokkaale waaw waaw fa kam min muslim aka bëri ci jullit laa yaqa'u minhu shirk moom day góorgóorlu ba du bokkaale walakin laa yuaadi ahla waaye nag am na juróomi xaritu mushrik ak ñaari yéefér lan lan la waxoon tuaadi lan la ibrahima waxoon ay mbokkam ibrahim yàlla moo ne woon noon ko roy ibrahima lan la moo tax yàlla tuddee ko imaamul muwahidin moo waxoon mbokk bi ñëpp taxaw mu ne leen man ak yéen yàlla rek moo fi dox dinaa leen bàyyi dinaa leen sànni fële ca ñag ba ba ngeen kennal yàlla bu ngeen kennalee yàlla nag ngeen nekk samay mbokk wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal bagdaau abadan mata hatta tu'minu billahi wahdah loolu mooy wax ibrahim kon loolu lan mu sant mooy ñu bañ leen ngir yàlla wala yabgaduhum fala yakunu musliman haqqan da ngay gis fi tey kuy ku dul julli ku dul julli nga dëkk ak moom ci biir kër mais seetaan barki démb youtube ci benn émission boobu ñu tuddee sénégal ci kanam ma gis kenn ku ñu invité mu ne ñun duñu julli duñu woor waa ji ne ko ah waaw loolu moom yàlla santaane wu ko de mu ne waaw ñun daal diw moo nu ko sant maadaama diw moo nu ko sant ñun suñu yoon nekkul ci leneen waa léegi santaane yàlla ak santaane mbindeefu yàlla bi kan lañ war a gën a jëf su yàlla santaane keneen santaane ñaari santaane yooyu waroon nañ cee xam ban mooy farata waroon nañ cee xam lan lan war a def kam ci ñun fii ñoo dëkk ak ñu dul julli te noonoo woo ko de bal sax yenn saa yi moo lay tegal añ bal yenn saa yi sax bu weer dee mooy jënd saakub ceeb bi te du julli te leer na la ne kii du julli comme ñaata te sa mbokk la te yàlla lu mu la santoon mooy ku dul julli bu mu nekk sa mbokk bu mu la sax jegee kon jullit yu bari dañuy taxaw di jaamu yàlla waaye li leen yàlla sant ci weneen wàll yi duñ ko def mbokk jullit yi ñeenteelu sart mooy alqiyam bi waajibi nasiha pour ñu nekk jullit ndeke ñeenti sart la sart bu njëkk mooy nga kennal yàlla ñaareelu sart ñaareelu sart mooy topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëggal ko ñetteel mooy noonoo ak bokkaalekat yi ak yéeféer yi bañ leen def ay mbokk ak i xarit ñeenteel mooy mbokk yi foog ñuy laayante biir foog ñuy waxante dëgg waaw foog jullit ñi di laayante biir ci bokkaalekat yeeg yéeféer yeeg bàkkaar yu bëri yi dafa laaj ñuy defante nasiha yenent bi bañ ko laajee addiin lan la wax addiin an nasiha tey bàyyi nañ laayante biir comme nañ bàyyi al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar ci biir kër yi kenn du laayante biir kenn du laayante biir ak doom yi soxna yi njaboot gi kenn du digle lu baax kenn du tere lu bon ndeke ñeenti charte yi su matee ci ab jullit yépp soo xoolee sa bopp nga gis ñeenti charte yi remplir nga ko ah kon léegi yow mun nañ laa kaseel signal na le anta muslim yow jullit nga ñeent yi bu ci benn manqué xoolaatal sa bopp waxuma la nag defoo yépp kon ndeke nan góorgóorlu bu nu yaakaar ne julli kese woor rek fa alxuraan moo wax ay nit ñoo ñëw dugg ci lislaam daan ne ñun gëm nañu yàlla yàlla na yonent bi wax leen ñii gëmuñu de du question lu ñuy def nii rek jullit lañu jeex na pare na déedéet nañu remplir charte yi ku nekk góor góorlu ci sa bopp bul tal keneen sa bopp yow rempliral li yàlla wax la pour yow ëllëg yow mal xiyaam nga mucc soo ko defee ba pare nag nga góorgóorlu ci liñ la sant gaa yi ñoo gaa yi ñoo ñëw dugg ne ñun dugg nañ yàlla ne dugg leen qaalatil aarabu amanna lan la yàlla wax qul lam tu'minu yàlla moo ko weddi ne gëmu leen du dëgg kon lan mooy iman mooy li ñu waxoon sànq mooy xol bi li muy def wax joo xam ne kese ci làmmiñ ji la yem lan moo tax yàlla wax naa fiq mooy koo xamante ne li muy wax ci làmmiñ rek la yem إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون باسكو لي wax du deug te xolal ñoo ñew na yow yonent nga li ñu wax deug la wala deug pourtant yonent la deug la waaye yàlla leen weddi lu tax ndax la ñu wax ci seen làmmiñ yi rek la yem waaw ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خصب مسندة yàlla di joxe seeni melokaan nu ñu mel soo leen gisee da nga leen di bëgg nangam ak nangam léegi ñëpp ay naafeq lañ gëmuñu dara loolu yàlla rek moo ko ñeme yàlla rek moo ñeme nit taxaw di wax di waat yàlla ne du dëgg kii dara yàlla wax ko Seydina Muhammad mu wax ko nit ñi kon mbokki julit yi noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hannde wonno ko sarɗiji baɗoji juulɗo juulɗo aɗa yiɗi andude ka juulɗo ƴeew hoorema e ɗeɗo geɗe nayi hoto tolniɗa e wortidinde allah subhanahu wa taala e ko ndewatama ko beele an ko allah tan ndewata walla won goɗɗum ko ndewata beele aɗa wortini allah aɗa waɗimo ko gooto e ko ndewatama ko kala ko ndewatama beele aɗa waɗimo hen gooto on woni charɗe awwal o ko rewi hen woni tasdiqu rasul beele aɗa gonɗini nelaɗo beele nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko haalantuma ko beele aɗa gonɗini fof aɗa jaɓi est ce que ala hen ka salaki so tawi wonko caliɗa hen juuluma iwi a wona juulɗo fof jaɓata mbiyeɗa ko tasdiq ko rewi hen woni muadatul mushrikin wal kafirin beele an juulɗo o aɗa sali ɓeɗo hefereɓe aɗa sali ɓe ɓeɗo shirkoɓe beɗe aɗa sali ɓe est ce que ala hen sehili est ce que ala hen bandiraɗo ɓeɗo ɓe ganduɗa koɓe mushrikina en koɓe hefereɓe wiyeɗa ko pour wona juulɗo il faut saloɗaɓe sa salaki ɓe a wona juulɗo ko rewi hen woni laaɓodirɗo reedu laaɓodiren reedu e nder meɗen eɗen kalda goonga sa yi musidɗo mo anduɗa o- o seli laawol kalda e makko yewtida e makko beele o fawto e laawol ngol o rutto caggal ɗeɗo gueɗe nayyi bandiraɓe julɓe ko ɗiɗo woni sarɗiji baɗoji neɗɗo nju- juulɗo sa yiɗi wonde juulɗo wona tan ƴetta sijada ma paya jama so noddinama jaha juuloya so korka ari hoora ala no jogui sarɗiji sarɗiji ɗi sa waɗi ɗum tan ka juulɗo sa waɗani hay sa juuli a wona juulɗo sa hoori tamit allah jabantama subhanahu wa taala mbokki juli ɗi dafa am ay ordonnance yuñ fi jot comme niñ ko baaxooji def am na sunu benn mbokk jullit bu jigéen dafa am cancer ci ween bi te xam ngeen loolu li ci nekk ci danger ak ay gravalité ordonnance yaa ngi nii muñ ñu jox pour ñu ñaanal ko mbokk yi ñu jàppale ko bu kenn xeeb li ngay joxe fii vendredi bu nekk wallahi li ñuy joxe joxuñu ko kenn ku dul yàlla wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu tajiduhu inda allah wallahi li ñuy joxe fii di ndimbali mbokki julit yi ci ya- loxo yàlla subhanahu wa taala lañ ko teg te yàlla dina ko jël denc ko ëllëg ak si biir ku ñëw mu daan la koy delloo mbokk yi kon incha allah bu nu paree julli lépp lu ab jullit mën ci soxna soosu ñu ngi lay tàllal loxo pour nga jàppale ko qumu ila salatikum yarhamukumullah bismillah
الله أكبر